Leral.net, s'informer en temps réel. Site d'information exclusive numéro 1, www.leral.net. Ah, bésu tey bi li ma ci tënk duhut lu yaatu moo di ne bu rëy ci jullit yi bés bu rëy ci borom xam yi bésam bu rëy la ci tijaan yi waaye bés bu rëy la ci xadra al ibrahimiya al xadra al fayda tijaniya ndax dañuy fàttaliku kii nga xam ne dañuy waxoon ne yaati yaati zamanun faydatun taati ala ashaabi hada alxadmi gayra mufannadin min gayri ma qaydin bi taxsiisi zamani wa kadaka taxsiisu almakaani almufradi wala taalama manna rijaalu tariqahu kullun tamanna naylaha bi tafarrudi rabbul baraya xassaha bi imamina chamsi lhuda bahri nada an ahmadi barhamu abdullahi haamilu sirrihi ma raqmi ana fi lida wal xoqadi loolu la ñuy fàttaliku ci loolu ca xam ba ca faydu ba ca maando ga ca baax ga ca tabega moom la ñuy fàttaliku fii tey lu ñaaw la noonu lislaam ñoo ko def te dañoo bari ci àddina dafa am noonu zahir ak noonu baatin kooku xëy na ak noonem da ko nëbb mënatu koo nëbb mu def loola la ma cey wax rek mooy jullit ñi xaw nañu sàggan ndax kooku waaj na ko lu yàgg te kenn yëgu ko mu ñu fexee ba mu bett leen di def boobu jaay yi waroon nañu góorgóorlu am vigilance ba lu mel noonu bu mu ñu dalati ñu ñoo dem yenn yàlla yoon yërëm leen. président la la wax wax ci kon kuy kenn ki jiite réew mi mooy ci njëkk a wax Macky Sall ci njëkk a wax kon kuy kenn xam nga dafa am ñoo xam ne dañuy wax rek pour wax wax joo xam ne doo ko teg fenn. mbir xew ki jiite réew mi président de la république wax ci naqarlu ko wax wax ak naata euh, euh, naataangoom ci réew moomu ba pare kon kay ku la wax ne kenn waxu ci boo ko day wax rek.